maa ngi nuyu ñëpp euh, maa ngi lay nuyu yow Mbemba Dramé di la remercier di leen féliciter yéen ak euh, réew mi réew mi yëpp réew mi FM yëpp ak groupe promo consulting mhm. li ko dalee président Mbagnick euh, ba ci employé yëpp mhm. di remercier féliciter tamit auditeurs yëpp ñu ngi déglu di leen nuyu ku ci mhm. nekk ci tuuram ak santam alors monsieur Driss Diallo yow yaay directeur général bu organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt du Sénégal est-ce que tey mën nga ñu expliquer bànqaas boobu. voilà jërëjëf euh, monsieur Dramé euh, comme ni ko waxee sànq. Euh, ma balaa may wax ci émission bi balaa ma lay expliquer organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt mm-hmm. dama bëggoon nga may ma tuuti mm-hmm. ma nuy population sénégalaise yi mm-hmm. euh, nuy nation bi yëpp li ko dalee président Macky son excellence euh, ba ci gouvernement bi yëpp rawatina Assome Aminata Diatta ministre du commerce et des PME di baalu ak ñëpp tamit en même temps aussi Euh, présenter mes condoléances ah di jaale Sénégal gi yëpp ci événement yi ñu génne événement événement yoo xamante ni dañoo xaw a woon metti tuuti si nit ñi di jaale ñëpp di ñaanal ñi jot a am ci ay gaañu gaañu yàlla may leen wér gu yaram yàlla may leen wér ak tan rapidement bu weesee loolu ah, remercier ah, population sénégalaise encore remercier le son excellence président Macky Sall Euh, par rapport à la confiance bi mu ma accordé mhm. confiance euh, nommément ci directeur poste directeur général de l'organe de régulation des systèmes des récépissés d'entrepôt euh, et profiter de la même occasion féliciter notre ministre Assome Aminata Diatta par qui tout ceci est arrivé euh, l'organe de régulation est euh, la bi nga xamante ni président daf ko créé xam ngeen ni son excellence mbébétam yëpp depuis mu nekk ci opposition ba ñëw ci pouvoir bi mhm. mooy naka lay def ba mën a jàppale euh, population bi seeni euh, dem ak ñëw walla seeni koom-koom mhm. mën a dox dox ci ay anam yu yomb mhm. jàppale tamit jeunesse yi pour ñu jot ci liggéey bi jot ci emploi yi ci ay anam yu yomb donc ci loolu la dem mu imaginer créer moom mu lëkkaloo ak banque mondiale moom excellence Macky ñu créer organe de régulation bi nga xamante ni banque mondiale moo ko suscité ne ko pour ñaari pays fii ci Afrique de l'Ouest mooy Sénégal ak Côte d'Ivoire pour organe bi lan mooy liggéeyam mooy fexe ba baykat bi mën a jot léegi ci financement te du génn benn garantie li muy bay su fekkee ceeb lay bay ceebam boobu mooy garantie fekkee dugub lay bay dugub boobu mooy garantie donc naka la ñuy jàppale kenn ku nekk ku nekk Fongolim wala ku nekk Marsassoum wala ku nekk Matam fële fi sori mais lu muy bay muy gerte muy dugub muy muy euh, ceeb wala muy leneen. Mhm. loolu noonu mu nekk ci liggéey te xam ko maîtriser ko loolu mooy nekk à partir de maintenant garantie am ci banque bi. Mhm. léegi nag organe bi day mhm. def de telle sorte que. production boobu mooy stockam boobu ñu am valeur. organe bi nag mooy saytu yooyu def jox leen ay récipi lu ñuy wax récépissé wax man récépissé boobu daanaka mooy garantie am boobu lay yóbbu ci banque banque bi dina ko financé parce que banque bi xam na récépissé bi fu mu jóg am na foofu confiance parce que récépissé suñu récépissé boobu banque centrale saytu na ko ba accordé ko jox ko valeur financière mm-hmm. donc baykat bi léegi comme ni ma ko waxee soxalul mu dem uti ay garantie pour dem gis banque bi financement dugubam bi mooy garantie wala darkasam uh, ndaamrasam boobu mooy garantie am. Mhm. te yéen pare ngeen pour accompagner kii euh, day indi projet ci wàllu yooyu. yéen pare ngeen pour projet pour participer ci. Euh, effectivement effectivement euh, ni ma ko waxee le récépissé d'entrepôt s'adresse à tout détenteur de marchandise. Mhm. mooy mu nekk production. wala mu nekk marchandise boo xamante xam nga parfois da ngay gis fii Sénégal ñi nga xam ne dañoo soxla mhm. importer ay eh, kii nu muy ko mbokk parce que mbokk bi ñuy béy fii ci réew mi du doy mhm. par exemple industrie de transformation société yi defar aliment ginaar yi wala aliment xar yi ay mel noonu mhm. ñooñu dañuy soxla mbokk bu bëri mbokk boobu parfois duñ ko am fii léegi dañ koy importer mais bu ñu ko importer loolu noonu marchandise boobu amaana banque moo leen di financer ah, mais balaa banque bi par exemple di leen di financé banque bi dafay soxla yenn garantie mm-hmm. donc à partir de maintenant c'est que l'organe de récépissé d'entrepôt mun mm-hmm. na nekk l'interface mm-hmm. banque bi financé leen mais marchandise bi bu ñëwee day nekk ci suñuy entrepôt ñu délivrer na ay récépissé yoo xamante ni boobu mooy garantie bancaire ok léegi ci loolu kon mun nañ xaar bànkaas bi wàcc ci ci fii ci réew mi Sénégal daal di expliquer ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan wi projet bi ni mel. effectivement ñu ngi ko président mu ngi def suñu nomination bi fii ci mois de février bi. Mhm. Euh, fi mu nekk ni dañu nekk di di def comme lu ñu koy waxee mise en place yi mhm. euh, teg affaires yi wala teg document yi bind procédures yi mhm. mais ci mois d' avril bi à partir du premier avril incha allah dañuy commencé dem mhm. dañuy dem ci campagne par exemple campagne anacarde bi mooy euh, ci zone Casamance bi parce que campagne boobu instant bi moo moo nekk moo am léegi comme daaw daaw defoon nañ benn test boo xamante organe bi créé wuñu ko mais dafa ñu defoon projet test ñu ko ñu test ko mu réussir daaw entrepôt. entrepôt mooy ñi nga xamante ne magasin yu bëri yu yaatu yooyu magasin yoo xamante ne day jël ay plus de cinq mille dix mille tonnes. Mhm. de production. Mhm. ñu testé ko. ñu testé ko Ziguinchor testé ko Sédhiou testé ko Kolda. Mhm. nga xamante producteur anacarde yëpp bu ñu récolté euh, ramasser seen seen. anacarde bi darkase bi. foofu lañ koy indi. soo indee ay cinq tonnes wala ñaari tonnes nga teg fu ñu jox la récépissé. su ko defee. da ngay dem. Mhm. nga indaat beneen nga def la récépissé bu nekk xaalis la. Mhm. boo demee ci banque nga soxla xaalis balaa ngay am client xam parfois. darkase mhm. bi buy commencé saison bi. ak kilo bi deux cent lay jar ay trois cent. léegi producteur bi day sonn parce que day soxla xaalis. mu war a jaay yooyu deux cent franc trois cent. fekk au mois de juin wala ñaari weer ci kanam tuuti. kilo bi day dem ba mille franc. su ko defee moom jaay na trois cent ba pare léegi commercant bi mu ko jaayoon wala intermédiaire bi mhm. kooku mooy bénéficier mhm. est-ce que tu vois léegi producteur bi day bénéficier da daf koy denc foofu mhm. mu jël récépissé bi dem ci banque bi ñu jël mbokk moomu ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam euh, soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la dellu ziar euh, tur bi ak foo ñuy woowee Aïssatou Coulibaly depuis Ziguinchor Aïssatou ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi waaw ah, moom moom surtout la première fois may dugg ci genre émission yi. Mhm, mhm. parce que ki ko jar moo ko jar. na mhm. tey ki ngeen invité moom. sama nit la. démb la woon tey soo ñëw. kon tey jii moom. confiance bu président am ma dënk ko loolu. lu war la ci moom. di ko ñaanal nag moom yéen yal na oyof ci moom. te taxawaay bu mu am biir Casamance ñun gis nañ ko. ñëpp a ngi teg seen bët. Mhm. di ko ñaanal ca kaw ca kanam. Mhm. te bañ a soppeeku nag di ko xam ne li métti na lool. Mhm. mais bu mu mucc wàcc yoonam. mësuta soppeeku nag moom. reste tel que tu es. ne jamais. Driss Junior. allez merci je t'encourage. ciao jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm mu doon wootee ba ca diwaanu mhm. Ziguinchor alors dañuy continuer rek ci loolu yaa ngi doon expliquer ci ñu bàyyi la rek nga continuer voilà ma terminer ci loolu donc mhm. baykat bi mu teg na cent tonnes par exemple wala wala disons teg na une tonne daanaka mhm. ci ci magasin ñun organe bi da koy délivrer récépissé récépissé boobu xam nga day demaat encore ci toolam ramasser yeneen anacarde di ñëw ñu jël kooku ci ligne bi itam euh, salaamaaleykum maaleykum salaam. waa soxna ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw sëñ maa ngi bu war a war. waa tur bi ak foo ñuy woowee. waa Amath Dia maa ngi dëkk Dalifort. Amath Dia Dalifort Amath bisimilah yaa ngi ci biir. waaw bon maa ngi leen nuyu di rafetlu émission bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, wax dëgg yàlla ki ñu invité moom sama sama waay la sama xarit ba. Mm-hmm. donc man moom dama nekk nit koo xam ne du ma wax si ay lu ma gëm wala si ay caaxaan. Mm-hmm. parce que waa ji bu nga xamee ba tey si liggéey laa ko xamee si njub. parce que ba nga xamante noonu ñu nekkoon plongé je pense. Mhm. mais yàgg suivre ay ay ay ay liggéeyam te béykat mag la nag marsaasum. Mhm. moo tax ma gën a bëgg béy quoi. Mhm. donc euh, lu ñu ko dénk nag domaine la te ma ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxawu. yàlla na ko yàlla dimbali. te mu gën a góorgóorlu parce que sànq dégg naa wax ay ay ay secteur anarcade. man j'ai eu la chance dem nekk ISRA nekk enquêteur. dem Casamance di def ci enquête ci secteur boobu nag foofu lañ gën a bëgg ngeen doole liggéey parce que jigéen sonn nañ trop mhm. te xam naa fi ñu ko dénk mhm. dénk nañ ko lu mu moom dénk nañ ko lu mu mën mhm. defalu ma dara mayu ma dara bokkuñu dara lu dul xari xarit lañ te li may séntu nag si moom gëm naa dinañ ko am te nit liggéeykat la te duñ ko caaxaan di ko encouragé di ko félicité di ko ñaan yàlla yàlla na yenn bi nga yàlla na ko yàlla téeñal mu oyof si moom loolu laa amoon may wax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm itam mbokk yow mii nga xam ne dugg joxe sa appréciation bi nu mel ñu bàyyi ko mu wéyal dinañ la may itam temps après nga gërëm ñëpp ñi nga xam ni dugg nañ fi wootee ñu bàyyi la nga continuer. baax na donc continuer toujours ci producteur anacarde bi. Mhm. koo xamante ne dafa indi benn toonam ci ci entrepôt bi ñu jox ko récépissé. Mhm. xam nga day demaat euh, utaat yeneen anacarde ci tool parce que tool bi mhm. chaque jour nga indi. daa ni kooku mi ngi ci ligne bi. salaamaaleykum mbokk mi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. ça va ngeen def baa yéen a ngi sant bu baax alhamdulilah. waaw man la monsieur Pape Fili Konaté. Mhm. Euh, woote à Kër Massar Camille Bass. Kër Massar Camille Bass wax bisimilah. Oh, ok dama bëggoon def juste benn témoignage par rapport à votre invité. Mhm. monsieur Driss Junior Diallo. Mhm. waaw Driss ñu ngi lay nuyu baax yéen a ngi ci jàmm. <laughs> waaw mu ngi lay dégg bu baax alhamdulilah dama bëggoon tey di leen remercier monsieur Demba. Mhm. ci invité bi nga xam ne moom ngeen invité ci monsieur Driss Diallo. Mhm. ci nomination bi nga xam ne moom la ko président Macky Sall. Mhm. nominé. Mhm. à travers ci responsabilité yi nga xam ne mi ngi ko doon def dans le sud. Mhm. plus particulièrement Ziguinchor Magsassoum ak Kédougou. ci ay responsabilités yi nga xam ne mi ngi ko doon def avec brio et pertinence bi nga xam ne moom la doon def. je rappelle que Brice Junior Diallo est un ingénieur financier bi nga xam ne mi ngi doon liggéey dans le privé. liggéey bu liggéey boo xam ne bu sell avant que ñuy ñëw tamit ci nguur gi. waaw léegi nag am nañu kontaan trop vraiment euh, ci nomination bi parce que Driss c'est quelqu'un ki nga xam ne projet yi nga xam ne moom la président de la république doon def plus particulièrement mhm. ci zone sud bi moom moo ko doon piloté moom moo ci doon liggéey mhm. ak ay collaborateurs yi nga xam ne ci yenn projet yi ci gën a faar mhm. financement yi nga xam ne ñu ngi ko doon def avec les jeunes et les femmes moom moo ëpp li nga xam ne mi ngi ko doon piloté ñu ngi koy ñaanal vraiment ci liggéey bi nga xam ne moom la ko président de la république ak madame Assome Diatta ministre du travail. jërëjëf euh, mu réussir ko avec brio ak élégance. Mhm. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ñu bàyyi ko mu daal di wéyal parce que li mu doon junj am na solo ñu bàyyi ko ñu tënk lool ñu daal di avancer. ci débat bi tënk ci loolu toujours wax na ni mhm. producteur bi. récépissé d'entrepôt producteur bi lay gën a jàppale mhm. producteur bi ñëw na am na benn tonne mhm. anacarde par exemple mhm. indi na ko ci magasin ci entrepôt bi ñu enregistré ko defal ko récépissé dafa war a démarrer dans une semaine indiwaat li mu li mu jot a li mu jot a for ci tool bi xam day for chaque jour da ngay dem for nga indiwaat léegi balaa muy am client boo xamante ni day koy fay prix bu bu bu am solo parfois day soxla yenn day soxla tuuti xaalis pour mën a jënd ay voilà <laughs> mhm. léegi récépissé bi mhm. da koy yóbbu mhm. au lieu muy récupérer xaalis bi yëpp day dem banque bi jël récépissé avancé ko tuuti xaalis li mu soxla mu mën a jënd lu muy dundee continuer liggéey bi su ko defee ci campagne bu comment dire campagne bi jotee fenn prix yi intéressant au lieu de trois cent prix yi nekk sept cent wala mille francs su ko defee boobaa mu ñëw mu am client mu ñëw ci banque bi client fay ci banque bi banque bi jox ko ordre. mu hmm. dem ubbi jël euh, hmm. kii bi. Hmm. donc su ko defee léegi du ko jaay benn ko xam avant. day jël production bi tey jaay benn tonne yëpp trois cent franc démarre jël xaalis boobu lekk ko. léegi day jël tonne bi garder ko. Mhm. mu dem ci banque banque bi jox ko tuuti xaalis loo xamante ni du mat ay deux euh, comment ay cinq cent kilos. Mhm. mu dund ci loolu. Mhm. le temps que prix bi gën a neex. mu jaay marque kii production bi. donc euh, loolu mooy intérêt récépissé d'entrepôt day permettre le producteur. maîtriser ban moment lay jaay. Euh, production am. kon dafa ñëw pour dimbali askan wi ci wàllu wi ni mel. jàppale askan wi parce que léegi. askan wi du jël. production bi bazardé ko. parce que du am fu mu koy denc wala dafay soxla xaalis te mënul dem ci banque banque bi leble ko banque xamul producteur mhm. mais léegi à partir du moment où am na ay entrepôt fu mu mën ko dugal mhm. entrepôt bi jox ko récépissé suñu organe jox ko récépissé d' entrepôt mën mhm. dem ci banque parce que banque yëpp xam nañu récépissé bi rek da koy jox lu mu soxla en attendant muy jaay stock boobu hmm. léegi daal di waxtaanee ci mbirum Casamance hmm. jógee ci loolu dem ba ci diwaanu Casamance Casamance itam ku fa hmm. am na li nga xam ni tey jot ngeen ko fa def comme ci wàllum réalisation ci lu jëm ci wàllum développement ci dëkk googile lan lañ mën a teg loxo tey ni gouvernement bu Macky Sall teg na fa ay réalisation yoo xam ne mën nañ ko teg loxo waaw jërëjëf euh, Mbemba ma lu wax wax ci réalisation Macky vraiment loolu hmm. Euh, lu neex la te jafewul dara ci expression. Mhm. parce que euh, defe naa Sénégal yëpp mën nañu accuser état du Sénégal depuis deux mille douze ba léegi accuser ko ay affaire yu bëri soof si wàllum réalisation. Mhm. réalisation yu euh, son excellence permettre. dafa dégg naa démb am na ku ku doon wax nee na Afrique yëpp amul benn président bu ko def te loolu dëgg la. Mhm. dëgg la ñu ñu jël kii si ligne bi. salaamaaleykum mbokk ñu ngi lay ziar allo salaamaaleykum ñàkkul ne dina ñëwaat ñëw bàyyi la nga wéyal. voilà donc réalisation yooyu man dama lay jox ay exemples yu ndaw. acca bismillah. ci wa ci Casamance par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. ñun euh, boo xoolee déjà euh, ñun ci axe Marsassoum Ziguinchor Sédhiou. Mm-hmm. boo xamante ni depuis indépendance Sénégal foofu mosul am tali. boo xamante ni zone boo xamante ni dafa am ay production yu am impôt yu am am solo. nga jël pont bi Marsassoum. boo xamante ni benn présidence sañu ko woon defa donc ñu jël kii asalaamaaleykum. salaamaaleykum. yàlla salaamaaleykum Rewmi FM. waaw yaa ngi ci biir tur bi ak. foo ñuy woowee. man la Souleymane Mbaye di woote HLM Grand Yoff. Souleymane Mbaye bisimilah yaa ngi ci biir. émission bi bu bëggoon participer émission bi wax tuuti ci Birame Junior Diallo. bisimilah mu ngi lay dégg. Birame nous sommes tellement contents de de t'entendre sur Rewmi FM franchement. parce que li c'est un honneur quoi. Mhm. Euh, dinaa leen wax Brice c'est un homme intègre. Mhm. quelqu'un koo xam dafa ambitieux. ba pare bëgg la région de Casamance. Mhm. ensuite nag dooraa ñëw bëgg Sénégal parce que nit ku nekk sa réew nga am quoi sa dëkk. voilà te ñu ngi lay ñaanal tamit li yàlla te teg la nii yàlla na ko yàlla yombal. te ñun ñu ngi leen ñaan comme affaire de récépissé yaa ngi yaa ngi expliqué ñu ngi dégg. peut-être ñun Casamance yi foofu noonu. ci kaju bi ci kii bi euh, akaju bi. Euh, diwtiir yooyu noonu tamit xam nga nga gën ñu si jàppale gars yi tamit xam nga investir si. Mm-hmm. gën a yomb investissement yi foofu noonu parce que mango baa ngi foofu xam nga. Mm-hmm. Euh, comment dirais je euh, ni ñu koy waxatee sax suñu màdd yi foofu nga xam ne luñ xam ni koy def des fois. Mm-hmm. Hmm? xam naa bu investissement bi gën a yomb foofu noonu foofu bas Casamance incha allah rabbi dina gën a yomb affaire yooyu. waaw ñu leen di ñaanal tamit émission bi neex na trop franchement. jërëjëf les questions sont pertinentes ñun tamit ñu déglu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf te mhm. du courage. ne change jamais parce que ni nga meloon nag dama la xamee depuis 2009 2010. ah continue sur cette lancée. Mhm. on est jërëjëf ñu ngi koy sant. merci beaucoup monsieur ñu ngi continué di déglu affaire am na solo. di woy di déglu rajo Rewmi FM yaa ngi ko doon wax pont bi nga xam ni 60 ba tey kenn defaru ko ko ngeen ne njiitu réew mi tey jaar na fa kooku rëcc na. dañuy daal di jëlaat keneen rek ñu bàyyi la nga wëyal. merci non pour wax ni euh, li Souleymane bay wax léegi. Mhm. dama wax récépissé d'entrepôt Sénégal fépp la du mhm. Casamance rek. dama ne campagne bi war a commencer. anacar bi dañu koy defar mais defoon nañ campagne. nañu ceeb bi. Mhm. ci ci vallée du fleuve Sénégal mooy côté Rosso bi Dagana yu mel noonu. Mhm. ñoom tamit donc Sénégal yëpp la récépissé bi concerné. dañuy mhm. dem ci Saalum bi tam ci wàllum gerte bi ak ak ak. dugub bi leeral yi am na solo donc pour ñëw ci Casamance bi dafay relier Casamance yëpp lay relier. pont 22 milliards la Macky moo joxe autorisation. te avant. route boo xamante foofu la jaar dem Sédhiou. yoon boobu ñun xamuñu ñaata nit ñoo fa dee. pour dem hôpital Sédhiou. Mhm. parce que oto bu même boo jëlee oto mooy kasambaar yi. Mhm. Mhm. balaa ngay egg entre Marsassoum Sédhiou da ngay def six heures de temps. problème te cinquante quatre kilomètres dong la. Mhm. nga jël Marsassoum Ziguinchor moins de soixante kilomètres. Mhm. même problème donc yooyu moo ko defar. Mhm. nga xool Gambie ñun Casamance yëpp bu ñuy dem Casamance Gambie la jaare loolu moo ñu arrangé. mais ñaata yoon la sonn ci Gambie ñaata personne ñoo dee ci fleuve Gambie boobu. man def naa Gambie xaw ma euh, combien de jours laa fa def ma ñu egg sept africains yi sonn mhm. moom moo ñëw defar ñu solution boobu mhm. donc excellence Macky Sall loolu man ñu eh, intervention boobu du intervention Sénégal man intervention Casamance laa koy waxee mhm. nga xool tamit mel ni ferme agricole man je suis témoin kii wax na ko sànq man dama bëgg agriculture parce que man dama liggéey ci pendant six ans maa ngi ci région région Sénégal yëpp laa def macha allah même chance affectation ci béykat yooyu mais ferme cent cinq plus de cent cinquante ferme agricole ferme bu nekk am na au moins un hectare moom la programme yi ñu teg mooy ci ANIDA wala ci FONGIP wala programme yenn programme DER yi ñu financé ci zone Casamance wax ma la zone nord Sénégal. Mhm. man Casamance laa nekk di wax. Mhm. ferme yoo xamante ni dama leen xam gis leen dem te ferme bu nekk am na au moins trois jeunes yu fay nekk liggéey. Mhm. donc ce sont des interventions yoo xamante ni des réalisations yoo xamante ni son excellence Macky moo ko permettre ñun mënuñu ko compter. boo xoolee ci wàllum équipement agricole yi. ah gis nga ni ren même hmm. Assome Aminata Diatta ministre du commerce. Hmm. moom moom ci boppam jël na six six tracteurs lay joxe may ko ci baykat Casamance. Hmm. président Macky Sall dafa def programme des tracteurs. plus de cent motoculteurs ren. loolu la ñu may dañu ko may jeunes yi. ci te Casamance wàll bu mu am dafa bëri parce que man gis naa ah, équipement yi dem naa fa comme ni ma waxee. affaire kii agriculture dafa ma intéressé bu baax. am na yeneen réalisation man boo xoolee ñun maraîchage amoon. Euh, wala Sédhiou ak bi waaw région Sédhiou bi. Mhm. ay abri provisoire ñoo fa bari woon. ci école bi ñu jël léegi amatul. <laughs> ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam ça va. Ah, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. c'est juste un plaisir de partager avec vous ce moment. jërëjëf jërëjëf. Euh, maa ngi nuyu. Mbacar Makhili. Mhm. Makhili Diémé. Makhili Diémé ñu ngi lay ziar bu baax. oui je suis je suis en direct euh, voilà. Mhm. maa ngi déglu grand bi Idriss Diallo. vraiment c' est un quelqu'un ko boo xam ne foo ko fekk développement lay wax. man mhm. ak moom mun nañ toog c' est un tout pour moi hein. Mhm. mais parfois day tàng jiir parce que il n' a pas développement. Mhm. moom loo ko mënta wax développement lay wax te gis naa aussi benn détermination si moom. avec lépp lu xew actuellement le climat ñëpp xam nañu ne climat actuellement lu fa nekk. mais boo ko gisee Facebook développement lay wax. il fait Macky merci rëcc na rëcc na mu ngi ne développement ngay wax développement boobu nga continuer di wax merci mhm. Makhili mhm. Mhm. moom mu ngi dëkk ci département Sédhiou bi la dëkk xam naa ko wax na dëgg ay développement parce que dañu tase ci développement la tase foofu la xamante moom ñoom seen gox bi temps yële passé la ñu bénéficier benn ferme de cinq hectares te président Macky moo leen ko defar ferme bi indi nañ foofu cinq nag mooy nag yooyu nag tubaabu yooyu dañuy wax ay Holstein loolu la indi foofu ñu jël kooku noonu ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam Rewmi FM. ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi ci biir. jërëjëf delloo. Mhm. ñu ngi lay dégg bu baax alo allo mbokk mi rëcc na ñu bàyyi la nga continuer donc mhm. ñoom moom zone am boobu de ferme ferme de cinq hectares la ñu bénéficié boo xamante am équipement yëpp mhm. am lépp mhm. arrosoir ak solaire donc ñooñu la ñoom xam naa seen zone bi nee nañu ñoom état musul def investissement ci seen zone man leen léegi état def na foofu yooyu yëpp grâce à son excellence Macky donc loolu lay wax c'est-à-dire que waa Casamance vraiment en tout cas Ah, man waxuma la yeneen président yi defuñu fi dara dama ne boo xoolee de façon comparative nga calculer les investissements qui ont été réalisés par l'État mhm. dans euh, euh, sur en, en fonction des années mhm. ci zone Casamance bi mhm. de 2012 à tey ñu am comme investissement cumulé mosuñu ko am de l'indépendance jusqu'à donc yooyu c'est des salutations qu'il faut faire boo xoolee le port de Ziguinchor léegi port de Ziguinchor day def exporter anacarde léegi ñun suñu kaju bi suñu anacarde port Ziguinchor la ñu koy embarqué def ko ci bateau mu dem Chine mu dem Inde indiens bu ñëwee léegi dañ sont obligés de consulter si jël suñuy bateau bateau bu tudd jiloor wala am bateau yu tudd am xaw ay Agen ma ñu def ko ci yóbbu ko def ci exportation mhm. kon léegi ñun Sénégal on est devenu un pays exportateur d'anacarde kon donc am na loo xam ne mën nañ ko jàpp teg si loxo ni di njiitu réew mi Macky moom moo ko def ci doon Casamance te moo ko def te pays exportateur de dans bi hmm. ministère di commerce moo def ba léegi loolu am parce que ministère du commerce moo def benn stratégie bi nga xamante ni léegi on ne transporte plus l'anacarde par la voie routière hors du Sénégal. Mhm. léegi lépp lañ koy dajale def ko ci ay entrepôt ay magasin looloo tax récépissé d' entrepôt bi am solo léegi mu ñëw. Mhm. parce que entrepôt yi Sénégal dafa jël engagement pour def ay entrepôt par exemple pour deux mille vingt et un seulement. Mhm. dañu def au moins vingt quatre entrepôt entrepôt bu nekk day am dix mille. dix mille euh, tonnes de production yoo xamante ni moom la. Hmm. entrepôt bu nekk dix sept jeunes ñoo fay liggéey. Hmm. dix sept jeunes par entre mooy emploi direct. Hmm. donc boo xamante ni léegi day stimuler stockage bi. c'est-à-dire que stockage bu ñu ko stimuler par exemple boo xoolee région comme Ziguinchor xam nga léegi dafay am problème de de place. léegi entrepôt yooyu bu ñu ko bu ñu ko defaree mhm. dañu foofu la ñuy stocké marchandise bi am na yoo xamante ne dañu koy exporté mhm. am na yoo xamante ne mooy les transformateurs mhm. mooy ñu nekk ci Casamance bi wala fii Sénégal te dañuy transformer kaju bi toute l'année def ko euh, transformation am na produit yu bëri ñu koy def avant bu ñu demee ba ay octobre du ñu amat kaju parce que jeex na parce que amuñu woon doole jënd stock wala du ñu am place fu ñu koy denc léegi entrepôt am na ba pare récépissé d'entrepôt am na mhm. léegi mun nañu jënd denc ko mhm. stocké ko def transformation. léegi dootul métti quoi dootul métti toute l'année dañuy am le stock disponible. Mm-hmm. et ça c'est bien grâce mm-hmm. au système de récépissé d'entrepôt et c'est grâce aussi à la position de pays exportateur d'anacarde mm-hmm. parce que maîtrise à partir de maintenant dañuy maîtriser suñu flux. flux de production suñu flux de transfert d'exportation. loolu dafa am solo ci réew. ba pare ressources humaines. aujourd'hui combien de personnes combien de jeunes formation combien de jeunes ont été formés dans les écoles privées mm -hmm. dans les écoles publiques des universités publiques par exemple mhm. bëri mhm. ci boo xoolee Bignona ISEP Bignona instant bi ñaata la nekk di former mhm. nga xool tamit euh, nu mu tudd sax euh, les écoles euh, de formation technique yoo xamante parce que ñun suñu ferme bi fële euh, côté bu côté Marsassoum bi mhm. suñu ferme bi jeune sortant d'école d' agriculture la jeunes yooyu yëpp mosuñu ñëw Dakar mhm. la ñu def seen BFM mhm. ñu dem ci école de kon avenir bi mi ngi état bi moo ko fay avenir bi ok kon euh, ñu jël mbokk moomu ci ligne bi salaamaaleykum ah, allo salaamaaleykum aleykum salaam ah, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax euh, maa ngi lay ziar ah, tur bi ak foo ñuy woowee maa ngi tudd Ousmane Seck Ousmane Seck. Mhm. waaw maa mhm, mhm. ngi dëkk Wakaam. Ousmane. waaw dama dama bëggoon a intervenir ci ah. débat bi. bisimilah yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. waaw. déglu fii da déglu directement nga bañ déglu rajo bi. waaw. léegi. Euh, c'était pour vous dire que Idriss Idriss bu ñu invité. vraiment man je j'en fais un honneur. Mhm. parce que bu ma koy xam. Mhm. liggéey kat tigi laa xam. Mhm. mooy euh, bu muy nekk FONGIP. muy jeune bu valeureux. jeune bu am ambition. et tout à l'heure à travers ces explications. vraiment man euh, éclairer na ma carrément sur l'organe qu'il dirige. te gis nañ ne développement foofu la mën a jaare mhm. boo xoolee les producteurs difficultés yu ñu daan am pour financement mhm. pour am financement je crois que la porte est ouverte maintenant mhm. am nañ facilité deuxièmement euh, intervention yu muy wax tey ku xamoon Marsassoum Marsassoum le pont de Marsassoum depuis mille neuf cent soixante nit ñee ngi xalaatoon ne nañ ko defar toog nañ ba mujjantal gi ñun ay ñu judd ay cinquante cinq jëm soixante dem nañ ba yaakaar nañ ñi mi ay wax la rek parce que bu ñu commencé wax depuis soixante ba léegi kenn mësu ko gis moo tax même keroog bu ñuy posé première pierre ñun dañoo yaakaaroon ne du dëgg ay naxaate la moo tax bu mu doonee réalité bu mu doonee réalité. Mhm. loolu rekk bu ci président yemoon. Mhm. ñu ni liggéey na. Mhm. bu jógee fa boo demee Marsassoum. c'était une commune rurale. mais tey boo fa tegee tànk. da nga naan c'est une ville vraiment merveilleuse. avec des routes bien faites. évacuation d'eau yu baax. et ce qui est valable pour Marsassoum mhm. est valable pour Sédhiou parce que Sédhiou à l'époque mhm. il y a dix ans il y quinze ans boo xoolee bu bu boo ñëwee ñu la bi commune la sax da nga naan c'est pas vrai mhm. je me rappelle qu'une fois j'ai discuté avec euh, un préfet bu dëkk Sédhiou mi ne notre ville cravate la am tal ci tali benn cravate moy benn kii ba nga xam ne da ngay dem def contour ça ne te ça ne te tey boo duggee Sédhiou. Mhm. c'est une mhm. lumière yi kenn du wax. Mhm. et tout à l'heure le pont de la Gambie. ma ne loolu rek loolu rek. nu Casamance. doy nañu sëkk. parce que ku daan def yoon bii. danga daan toog ba finalement tu te disais que man dootuma ngir coono bu ñuy daj. bu yàlla defee nag tey ñu am lii mhm. ñu ne alhamdulilah Driss mhm. yow euh, mënuñ na wax leneen lu dul gis nga sa chemin mhm. boo topp continuer ko parce que effort du nul effort du nul gis nga les termes yooyu wax noonu man am naa ci sama famille ku nga xam ne mu ci bénéficié presque ñun ñëpp ci la ñuy dund bon nag. Mhm. Euh, alhamdulilah. d'accord nous sommes sur la voie du mhm. mhm. ñu ngi leen di ñaanal ñun ñëpp. jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm ci lim ñu doon indi li nga xam ne moo jëm ay leeral. ba tey rek ñu ngi woon ca diwaanu Casamance bi. Euh, ci réalisation ci réalisation yi ñu bàyyi la nga daal di wëyal. jërëjëf monsieur Euh, alors toujours ci ci wàllum réalisation. man mhm. damay wax parce que dama bëgg jeunes yi. Mhm. ñu dégg message bi. parce que mhm. man jeune la comme ñoom. Euh, man bi may commencé bi en 2008. 2009 dama nekkoon ci ci privé bi. am na benn auditeur bi ko waxoon. mais avant may dugg ci privé bi dama defoon activité personnelle boo xamante ne sama entreprise bopp. activité entreprise individuelle di ko doxal. ci wàllum d' commerce. ci commerce ci ay affaires ay mel ay yére ay yu mel noonu mm-hmm. commerce yenn baax gadget yu mel noonu mm-hmm. après ma soog bi ma paree ma dugg ma am chance ma am benn emploi ci banque ci benn test ba ñu def ma commencé liggéey ci banque. Mhm. def foofu quatre ans. Mhm. ci banque bi. Mhm. soog dem mais partout fi nga def mooy engagement bi. mais pour wax ne jeunes yi. actuellement dafa am ay opportunités yu bëri yu nekk. dafa am ñaari projet yu am solo. yooyu foog ma wax ko projet yoo xamante dafa nekk ci agriculture. benn bi beneen bi dafa dépassé agriculture. mooy Agri Jeunes ak Proval. yoo xamante ne état du Sénégal ñoo lëkkaloo ak banque mondiale ak banque africaine de développement pour taataan projet yooyu mhm. actuellement bi may wax ni Agri Jeunes dafa bind mhm. boo demee ci site ministère de l'agriculture bi di leen gis dañoo bind jeunes yi nañu intégrer nañu inscrire mhm. pour ñu am ñu former ñu may ñu am chance soit ñu am seen ferme wala ñu am seen multiservice wala ñu am seen boutique wala ñu am seen leneen mais dafay jaar ci formation donc instant inscription dañoo ko dañu ko ubbi. Mm-hmm. donc jeunes yi dama leen di ñaax. ñu mm-hmm. dem même ci internet. Mm-hmm. bind projet agri jeune. dinañu gis fiche yi ñu renseigné wu. su ñu ko bëggee sax mën naa la fi bàyyi ay fiche nga envoyé leen par WhatsApp ay yu mel noonu. ñu inscrire c'est pour tous les jeunes sénégalais. ok ñu bàyyi kii mu ngi insister ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum waaw ñu ngi lay ziar bu baax góor gi. waaw lan nga ñu mën a wax ci Idriss. Eh, wax dëgg yàlla. maa ngi koy félicité d' abord. gërëm ko. Mhm. sant ko. Mhm. xamal ñu ngi sant suñu borom. Mhm. ci vision président de la république. ndax tey. li ma déggee monsieur Diallo di expliqué. il a mis les hommes à la place qu'il faut. et loolu mooy lan. Mmh. être plus près mmh. des acteurs et des opérateurs mm-hmm. démb amoon nañu jafe mm-hmm. sur le plan financier mm-hmm. sur le plan de développement mais aujourd'hui on a bien compris qu'il faut créer des conditions pour alléger permettre justement aux acteurs d'investir à tout moment et ceci sans contrainte te ki nga xam ne moom la ñu teg ko. Mhm. muy Driss. Mhm. ah wax dëgg yàlla na xam ni. Mhm. il ne sera pas seul. soobee xam-xamam. jomam. taxawaayam moo tax teg ko. Sénégal yëpp ñu ngi koy épaulé. pour traduire en tout cas la vision du chef de l'État par rapport ak boobu tey. ah wax dëgg yàlla. mun nañu ne incha allah bu soob yàlla sàkk ni yàlla mhm. te eh, Mamadou mhm. général la mhm. nous au développement ba centrale syndicale bii ñu justement le de développement kon tey la il a un projet il a un incha allah nous devrons l'épauler dans toutes les jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax. Mhm. alors yaa ngi doon wax ñu bàyyi la nga terminer ci ñaari projet yi. Mhm. voilà ci voilà donc donc il faut que jeunes yi man damay wax jeune yi pour ñu mën a comprendre ñu xam ni mhm. létat état du Sénégal c' est des jeunes. il faut que ñu bañ a toog ci kër yi bañ a toog ci terrain de football yi wala ci ci télé yi di seetaan match Barça ay Real ay mel noonu. il faut que ñu dem. ci information bi. ñu dem ci institution yi mhm. institution yi dañ ko créer teg leen fii seen liggéey lool la mhm. donc il faut que ñu ñu loolu dama leen di ñaax pour ñu dem donc projet Proval tamit xam nga wax naa Agri Jeunes am beneen projet boo xam ne Proval moom agriculture lay gën a jàppale jeunes yi mhm. partout ci huit régions du Sénégal huit régions du Sénégal la ñu nekk donc loolu tamit mën nañ ko gis ci site internet ministère de l'agriculture donc pour les encourager donc ngi déroulé benn programme bi tudd projet ne Assome Aminata jaata moo ko initié ci ministère bi fu mu nekk nii am na plus de vingt cinq points jege yu ñu defar am na yu nekk ci Parcelles Assainies fii am na yu nekk Mermoz am na yu nekk euh, xaw ma Ouest Foire am na yu nekk Casamance tamit. Mm-hmm. donc ce sont des projets yoo xamante ni c' est destiné aux jeunes. Mm-hmm. et pourtant ay jeunes sénégalais ñoo fa nekk. Mm-hmm. donc je ne peux pas comprendre que ñu ne am na <laughs> jeunes yi gisuñu seen bopp. parce que je comprends. il faut ñu ngi fi ñu dem voilà ñu dem ci projet ñu dem. bu ñu ragal dara. foofu projet yi loo seen liggéey mooy recevoir nit ñi. expliquer leen boo demee recevoir ñu bu baax. Mhm. nga bind wala nga nga ñëw nga dénoncer que les médias mhm. euh, sont là. Mhm. ñoom la ñu ko jagleel. chef de l'État dafa am vision. vision ak ay mission mais président Macky Sall mënul dugg ci télé ci médias yi pour expliquer yi ñu wax. donc am na yi mu jox ay a def liggéey bi ñooñu il faut que am ay yeneen relais. relais yooyu mën na nekk ci chef de village chef de quartier wala. wala les personnes euh, qui sont porteuses de voix mhm. Mhm. yooyu yëpp donc ñun ñoo war a liggéey boobu pour wéyal vision chef de l'État bi mhm. wéyal vision ministre yi wala euh, euh, opération ministre yi nekk di def pour mu gën a dugg ci ci ci gox goxaan yi ah, xëy na ñàkkul ni ba nga jógee Marsassoum wala diwaanu Casamance yàggul tey yan lan nga ñu mën a wax ci pont bi état d'avancement bi fu mu toll ndax askan wi tamit ñu ci bari bëgg nañ pont bi pare ba dem beeg dikk bi mën a gën a gaaw voilà gisee pont Marsassoum dañu ne un pont de vingt deux milliards. Mhm. effectivement soo ko xoolee man damay naan euh, d' abord avant pont Marsassoum route Marsassoum Sédhiou dama naan si la meilleure route du Sénégal actuellement. Mhm. même autoroute à péage moo ko dax. Mhm. pour te dire que c'est rare ngay gis ay infrastructures yu ñuy def ci région yu reculé mm-hmm. ñu am ñu am infrastructure yu baax yooyu mm-hmm. yooyu ci nguur Macky Sall lañ ko commencé gis il faut qu'on se dise la vérité un peu mm-hmm. maintenant pont bi vingt deux milliards bon pont boo xamante un pont moderne intelligent boo xamante ne fu mu nekk nii plus de soixante pour cent des travaux ont été déroulés am na ñu koy wax ñu ne keroog sax dégg naa kii di wax euh, conseillers yi conseillers municipaux yi ñu ne plus de soixante dix pour cent. Mhm. mais en tout cas soo ko gisee da ngay gis rek nga xam ne li li des daal ñu def ouverture pont bëriwul donc bëriwul dara. Mhm. Mhm. te loolu bi ñu ko commencé euh, même pas en c' est de dix huit mois. donc c' est moins de deux ans. moins de deux ans te dañu koy recevoir defe naa ci mois d' octobre bii di ñëw la donc ce sont des investissements qui sont réels qui sont visibles. Mm. problème yi nga xam ni amoon na fii fan yi ñu génn ak manifestation yi. Mm. alors tey am na sax ñenn ñu ne jàpp na ni Ousmane Sonko mën nañ ko def benn nit boo xam ne mën na régler mbirum Casamance bi yow nga xam ni ngay acteur itam politique ci région sud euh, ban jàngat nga am ci mbir moomu lan moo ci sa xalaat. ah bon ci côté politique bi euh, côté boobu il faut il faut rester prudent man mënuma la wax ni benn nit mën na rek ñëw régler problème Sénégal yëpp. Mm-hmm. Euh, c'est pas possible. sénégalais yi ñooy régler problème yi mhm. ça veut dire quoi il faut que bu ñu tegee ay nit ci kanam mhm. ñu jox leen confiance bi ñu wóol leen ñu gëm leen tamit mhm. ba pare bu ñu joxee vision wala ñu jox ay mission yi ñu war a dérouler ñu mën a jàpp ci mission yooyu dérouler leen ku ñu nekk mën a gis boppam Casamance dafa xaw a sensible ñun ñëpp ay Casamance ñun foofu lañ judee foofu lañ yore foofu lañ nekk ba léegi mais gis nañu ay personnalité yu bëri hmm. Casamance Abbé Diamacoune Senghor ay Angrane Badiane hmm. ay ibu Diallo ay Assane Seck hmm. yu mel noonu ak ñeneen ñeneen ñu bëri mënu ma leen lim ñoom ñëpp am des chefs religieux comme les familles Soané les familles Dramé famille Diallo ay mel noonu ñoo ñëpp wax nañ ci crise bi kon ñoo ñëpp boo gisee investir nañ ci crise bi ba léegi crise bi mu ngi nekk fii donc amul une personne boo xamante ni bu ñu ko personne euh, comment dirais providentielle mm-hmm. donc président Macky bu mu ñëwee ba tey ñëpp remercier nañu tamit dafa am accalmie une mm-hmm. accalmie vraiment qui est am ko population bi yëpp mu ngi koy rafetlu mm-hmm. avant boo demee ci yoon Casamance yi ba chaque cinquante kilomètres wala moins de cinquante da ngay gis ay barrage ay barrage militaire fu mu nekk nii dootoo gis benn barrage nekkul ci yoon bi benn barrage nekkul yëpp ça veut dire quoi y a de l'accalmie l'espoir mhm. doo dégg ay braquage ay yu mel noonu mhm. boo xoolee dans les années deux mille dix deux mille neuf wala deux yi bëri mhm. donc vraiment sant yàlla sant yàlla Sénégalais yi mën nañu liggéey ci wàllu boobu mais mënuñu ne benn nit rek moo mën a ñëw wax régler problème bi donc vraiment man maa ngi encourager l'unité parce que loolu gis nga paix bi paix bi vraiment comme Houphouët Boigny ni mu koy waxee mooy ancien président de Côte d'Ivoire mm-hmm. le vrai bonheur on ne l'aperçoit que lorsqu'on l'a perdu mm-hmm. la paix elle aussi xam nga c'est un bonheur on va vraiment on ne réalise pas mm-hmm. son son son son degré de bonheur wala son degré important jusqu'à ce qu'on l'ait perdu démb gis naa benn waaye mu ne mu ne bu guerre commencé fii nga war a jël sa matelas jël sa benn doom fii sa beneen doom fii doo xalaat euh, leneen ut xaalis wala leneen da ngay xalaat rek pour que qu'on qu'on ait vraiment ce qu'on dit euh, raison gardée. Mhm. pour qu'on qu même dans ce qu'on appelle dans euh, euh, dans ces invectives politiques ou mhm. euh, xawma comment je vais l'appeler mhm. qu'on sache raison garder ñu xam ni Sénégal gi ñun ñoo ko moom il faut qu'on aille donc nag ku ci nekk mhm. war na war baa euh, kii comment dire war na def liggéeyam ci loolu est-ce que gisoo ni tey euh, yéen ñi nga xam ne yéen a fete ci nguur gi tey ba ngeen ni wane ay réalisation njiitu réew mi ci diwaanu Casamance est-ce que du ngeen xaw a sëgg tuuti par rapport ak percée bi nga xam ni Ousmane Sonko mu ngi koy def ca diwaanu Casamance waaw non réalisation la wax naa la ko sànq man réalisation yi vraiment c'est la communication de façon globale sur les projets wala sur les réalisations de l'État ça nous incombe mm-hmm. ñun ñoo ko war a def dañu ko war a euh, di gën a def encore c'est vrai que def nañ ci ay efforts yu bëri mais il faut qu'on renforce mm-hmm. euh, pour qu'on montre mais aussi aussi il faut qu'on donne confiance mm-hmm. aux gens qui sont en face mooy les jeunes yoo xamante ni il faut que ñu jox leen confiance ñu ne leen sànq loolu la doon wax ma ne ko mhm. ñëw leen ci projet yi mhm. ñëw leen jël renseignement projet yaa ngi fii c'est pour vous mhm. si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas vous êtes libre de le dénoncer tey y a les médias sociaux qui sont là même boo journal wala journaliste mën nga bind ah dem naa projet X lii laa ñu gis foofu te lool neexul te di nga gis gars yi ils vont le corriger si c'est la réalité donc ci wàllum Casamance on peut pas dire euh, comment dirais-je que euh, euh, la mouvance présidentielle a connu des boo xoolee ci trois régions Casamance la Benno Bokk Yaakaar a toujours gagné et a gagné de façon globale mm-hmm. aux dernières élections présidentielles boo xamante ne moom mooy baromètre bi mm-hmm. ci trois régions yëpp gagné nañu les deux régions qui sont les régions les plus importantes en termes de voix mm-hmm. il y a que la région de Ziguinchor boo xamante dafa am ay sooxe sax te loolu tamit il faut que nit ñi comprendre lu tax euh, par ñun Benno Bokk Yaakaar ñu perdre ci ci a un problème d'unité il a un déggoo qui s'est posé à un moment donné. Mhm. mais yooyu yëpp nit ñi ku ci nekk gis nañ ko toog nañu wax nañ ci waxtaan nañ ci. Mhm. boo xoolee temps yëpp. Mhm. da nga gis madame le ministre Assome Diatta réunir na leader yi yëpp foofu woote na leen ñu toog ñu gën a waxtaan te loolu ñu ngi koy def am na yeneen leader yu ko def. Euh, yu ko def. Euh, temps yële passé tam pour ñu waxtaan nekk ci unité bi. parce que bu ñu nekkul ci unité bi. Euh, nit ñi du ñu jox confiance wala du ñu jox gëdd ailleurs c'est pas parce qu'ils sont rattachés là-bas wala gëm nañ foofu mais dañu xam dañuy gis ni yéen mhm. yéen a ngi ci nguur gi ba pare déggoowu leen donc ñoom ñu mere ñu dem fale moo tax l'unité elle important importante mhm. yaa ngi wax unité mhm. tey ñu wax ci diwaanu Casamance waaye itam am na boo xam ne yitteel na la muy ci diwaanu Marsassoum Marsassoum nag euh, yow tey euh, Driss lan mooy say ambition personnel ci diwaanu Marsassoum tey man Marsassoum Ziguinchor comme ni nga ko waxee mhm. Bignona Kolda interdit <laughs> Kolda Vélingara aw ma chance interdit yo aussi pour quelqu'un qui connaît un peu mon histoire wala mon vécu mhm. xam nañu ci trois régions yëpp. Mhm. vraiment c' est des région bu nekk mën naa ne fii sama région la. Mhm. te partout fu ma dem tamit mën naa ci wax am naa ci ay baat wala am ci ay kaddu. Mhm. donc euh, ci côté Casamance dama am ambition pour Casamance mooy lan mooy Casamance nekk un cas une Casamance de paix. une Casamance de développement. Casamance bi nga xamante ni jeunes yi du ñu nekk di frustré wala di déconné wala di naan gars yi respecté wu ñu wala joxuñu cër joxuñu lool. une Casamance boo dem jël li ñu war a jël mhm. ci intelligence ci respe et ci ci comment ci conformité avec état de droit mhm. ci conform loolu dafa am importance mhm. man Casamance boobu laay rêvé ambition yooyu laa am pour Marsassoum ambition yooyu laa am pour toutes le région de la Casamance alors ci wàllum développement ni ma ko waxee eh, Marsassoum il faut mu commencé na développé wu comme sànq benn auditeur auditeur bu ko wax boo duggee Marsassoum dugg Ziguinchor wala dugg Sédhiou tey Euh, danga dangay foog ne yaa ngi dakaar mhm. et sa ce sont des ambitions parmi d'autres ambitions que, que nous avons toujours portées. et mhm. que nous nous sommes battus. Mhm. aujourd'hui Marsassoum dafa am ay fermes agricoles. ferme de douze hectares par exemple bi nekk Marsassoum nga xamante ni jeunes yi y a au moins une centaine de jeunes qui travaillent là-bas. yoo xamante ni Dakar fii lañ nekkoon ci banlieue gi di def ay journaliers yu mel noonu. léegi ñu ngi toog fële. di liggéey loolu c'est une fierté donc ce sont des ambitions comme ça a pour que l'État euh, man. am comment dirais beaucoup plus d'impact mm -hmm. dans les localités les plus éloignées de ce pays mm ñu jeexalee ko lu ñu desee ci waxtu bëriwul mhm. coronavirus bi mi ngi fi gis nañ ni levé nañ euh, mesure de restriction yi léegi euh, mën nañ ni askan wi dañ leen xaw a bàyyi waaye coronavirus bi mi ngi fi parce que li nga xam ne moo jëm ci baaru mille ay décès euh, gis nañ ko fi tey naka nga gisee li ngay apprécier la li nga xam ne moo jëm ci levé restriction yi waaw am xam nga wàllu coronavirus am na wax nañ ci lu bëri. Mhm. mais il faut d'abord il faut reconnaître une chose c'est de remercier et de féliciter le gouvernement du Sénégal le le peuple sénégalais. parce que ñun li ñu def ci combat fii peuple sénégalais ak suñu gouvernement. Mhm. vraiment dafa ne daanaka victoire la ci ñun. Mhm. c'est vrai que am nañu mille plus de mille décès loolu xaw na. a bëri tuuti. Mhm. mais boo xoolee boo ko comparé ci yenn pays yi vraiment da nga naan jaajëf Sénégal. Mhm. bravo le Sénégal et ça c' par rapport à la vision du chef de l' État et vraiment avec l' des autorités sanitaires. Mhm. suñu médecins yi suñu infirmiers chefs de poste yi nekk ci village yi wala médecins régionaux wala directeur yi nekk ci ministères yi. ak population ñun ñëpp ak chef religieux yi vraiment yoo xamante ni chef religieux yi nekk boo dem Touba ba Casamance Tivaouane mhm. Mhm. wala nga dem Pire chef religieux bu nekk dafa tàkk masque am mhm. am geste barrière am yu muy vraiment c'est ça qui est l'important et c'est à féliciter c'est ça le Sénégal donc pour dire que levé nañu mesures yi mais ba tey geste barrière yi mu ngi des gis nga ni maa ngi toog ak sama masque man fu may dem maa ngi ak sama masque naa yéen tamit gis naa fi ay masque ay yu mel noonu fu may bi yooyu yëpp il faut que ñu gën a appliquer gestes barrières et ça c'est les jeunes nous les jeunes mhm. ñun ñoo ko war parce que ñun ñoo on est les plus nombreux on dit on est soixante à soixante-dix pour cent de jeunes dans ce pays mhm. donc il faut que ñu gën def gestes barrières pour ñu mhm. protéger suñuy doom mais protéger suñuy parents yi tamit donc levenet mesures yi mais euh, corona mi ngi fi mais corona mi ngi fi nañ ko gën a xeex pour mu mën a jóg fii Mhm. ci li jëm ci wàllum vaccin bi itam gis na ni vaccin bi état au Sénégal indi na ko pour ñàkk ñi nga xam ni ñoom ñoo ko gën a yellool euh, euh, da nga jàpp ni solution bi ba tey vaccin bi la. waaw vaccin ma ci solution yi la nekk parce que xam nga xam nga nit ñi ñi bëri ñuy wax ci vaccin yi parce que léegi xam nga lu tax mhm. du Sénégal rek c'est tout le monde entier les réseaux sociaux sont là mhm. les applications sont là ku ci nekk mun na toog def vidéo am monter appliquer changer lii def lii wax leen donc yooyu yëpp am na fi mhm. mais il faut que nit ñi comprendre ñoo xam ne li ñuy wax ci WhatsApp yi wala ji réseaux sociaux yi nañu def attention ñu contrôler ko ñu saytu ko balaa ñu koy gëm. Mhm. vaccin. Mhm. man mosuma gis yi àdduna nit ñi di incriminer vaccin naan vaccin bi wóoluwuñu ko ñun ñëpp bu ñuy juddoo ba tey ñu ngi vacciné wu ba léegi nii boo amee doom da koy yóbbu ci centre de santé. programme élargi de vaccination na ay vaccin yu muy jël chaque mois mhm. am na ay traitement yu muy jël chaque léegi ñu ngi def vaccin yooyu vaccin bii tamit c'est les mêmes vaccins ñun vacciné nañu mais ñoo ngi fi man vacciné naa où est le problème je suis donc di ñaax askan wi ñu dem vaccin ñu ñaax ñu mm. ñaax ñun mm. ñu ngi xeex président Macky Sall mu ngi xeex pour ñu am vaccin mm-hmm. et c'est à remercier si tu vois tous les pays africains ñun on fait partie du des premiers pays africains yu dispose de vaccin bi mm-hmm. nañu ñëw ñu vacciner man dama nekk ak ay ay personnes âgées ay pas yoo xamante ni dem nañ man ma maman man maa ko yóbbu man ne ko demal vacciner ay yu mel noonu ñi bëri pour ñu vacciner les premiers à se vacciner si nous donc il faut que nit ñi dem vaccin bi va comme vaccin yëpp la. Mhm. gis nga barki dem rek tubaab yi nee nañu Union européenne nee nañu. Mhm. vaccin du Sénégal. vaccin AstraZeneca bi. Mhm. vaccin bu baax la. nañu ko continuer di def. alors que temps yële passé nit ñi ñu ngi wax fii donc vaccin bi il faut que ñu jàpp si. ñu jàpp si mesure barrières yi d' abord. ba ñu su vaccin bu am na. ñu inscrire ñu dem ñu vacciner parce que c' pour notre propre santé à nous tous. Idriss Diallo Junior ñu ngi lay sant di la gërëm émission bi jeex la ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw jërëjëf xanaa di leen remercier parce mhm. que defe naa Rewmi FM il euh, a un an de cela ñëwoon naa fi def émission. Mhm. Euh, ci wàllum développement. Mhm. mooy ci projet état yi. Mhm. maa ngi ñëwaat euh, ren encore ngeen invité c'est vrai que casquette bi xaw na changé tuuti. mais comme ni ko auditeurs yi waxee. je reste le même. xanaa remercier encore une fois de plus son excellence le président Macky Sall. et l'encourager encore davantage. ci combat yi mu nekk parce que combat yu bëri la nekk di def. ci combat politique yi ci combat sociaux yi. fonk combat surtout de développement mhm. et féliciter tamit euh, les ministres du gouvernement mhm. mais particulièrement les ministres Assome Aminata jaata bi nga xamante ni bu ministre du commerce ñu ngi tamit ñu ngi xeex mhm. euh, ci wàllum euh, gouvernement ci maîtrise des prix wala ci ci soutien mooy par mu ñi am yàqule fii ci événement yi mooy station ay yu mel noonu ak yeneen jaaykat yoo xamante jaaykat caaf bi ak yu mel noonu ñu ngi déroulé ay programme pour mën a jàppale ñëpp moom tamit vraiment il faut le féliciter L'agriculture aussi, il faut les féliciter. Les ministres de l'agriculture, il faut féliciter euh, qui sont en train de ñoo xam ne nekk di defar ay mhm. ay ay yu bëri. Mhm. féliciter gouvernement Sénégal bi yëpp. Mhm. mais surtout. appeler les gens à l'unité mhm. man je reviens encore à, à la fin pour appeler les jeunes mhm. il faut que jeunes yi ñu ñëw ñu dugg ci projet ñu dem jël renseignement jël fiche yi inscrire mhm. ñu xam ni seeni droit la ñu jël ci projet projet yaa ngi fii te état bi moo ko indi pour tous les sénégalais nañu dem ci loolu emploi salarié baax na. Mhm. mais emploi tamit emploi employé boppam def entrepreneuriat tamit dafa baax. Mhm. donc il faut que ñu góor góorlu ñu jóg seen téléphone yi ñu bàyyi WhatsApp bi ak Facebook bi. ñu dem ci structures yi wala renseigné wu ci Google bi am information yi. Mm-hmm. monter seen projet wala bu ñu mënul monter projet ñu gis grand yi ci koñ yi wala dem ci euh, entreprise yi. Mm-hmm. ñaax leen ah ba jàppale ñu monter projet. Mm-hmm. donc côté boobu vraiment maa ngi ñaax jënd. si côté Casamance bi ñun leader Casamance. maa ngi ñaaxaat leader yëpp nag. pour qu'on fasse davantage de l'union. ñu ñu ensemble pour que nous allions ensemble solutionner les problèmes état bi Macky Sall le président Macky Sall nous a fait confiance il faut que davantage on soit les soldats de son excellence mais surtout soit qu'on soit les soldats de cette population mm -hmm. qu'on apporte des solutions à cette population qu'on mm -hmm. soutienne cette population qu'on aille à, la base pour pouvoir travailler kii am na problème d'employabilité ñu wax ko moom wax ko dëgg ne ko fii nga war a jaar pour nga solver ce problème kii mhm. am na problème formation ñu jàppale ko tamit ci côté boobu mm-hmm. donc ci yooyu lay wax ci mm-hmm. remercier tamit toute la population marsasoumoise mm-hmm. toute la population casamançaise de Ziguinchor à à Kolda comme ni ñu koy waxee de Diogué à Goulombou parce que yooyu yëpp vraiment c'est c'est c'est notre problème mais surtout remercier toute la population sénégalaise en particulier euh, les chefs euh, religieux et dire encore une fois de plus euh, euh l'unité pour toute la pour tout le peuple sénégalais. Mhm. en tout cas ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ki nga xam ni moom moo di Idriss Junior Diallo moom mi nga xam ne tey moom moo nekkoon invité li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi di fàttali rek ni moom mooy directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt du Sénégal moom la ñu amoon mbégte tey dalal ko fii ci émission gox bi mbokk yi di leen sant nag di leen gërëm gërëm Adama jàllo moom mi nga xam ni moom moo nekkoon ci xarale gi jox leen beneen dimanche. ak beneen invité ci émission gox bi